بسم الله الرحمن الرحيم بارك من الله خلق الرحيم بارك السماء في الرحيم خلق الدين وكتا لعلمي نعم لنيني نعم لزيارة نعم لبركة وعلى من أكيد من أنا نيني njabootu sëriñ Sëriñ Bara Dolly teew suñu suñu biir te ki ko jiite di Cheikh Abdou Khadre Mbacké moom sëriñ Sëriñ Bara ci ndigal la sëriñ Cheikh Abdou Khadre Mbacké di ziare lool suñu sopp sopp si xam-xam di ziare suñu maam Mor ak sëriñ am ab sama di ziare seen mbokkam baax baax si di sëriñ di ziare njaboot ba borom borom ak kër di ziare sëriñ si xaw bawar moom sëriñ Aliou Fall moom Mungkin sëriñ Aliou Fall Fall di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm gërëm borom ko si taw taw bi muy bi nga xam ne lu day ne dina ko baax moom sëriñ bi ndax wax bi fi sëriñ bi wax noonu noonu la war na jóg loolu la jàpp te santaat daal yàlla ndax su fekkoon ne dañoo dañoo tolloo ci lan la xam na day daj na ndax sudah ànd gi di wax sëriñ am sëb sëb bu sunu xel ñëwee bu sunu pexe bu sunu lijjanti waaye ko ko war waa tànnal ko borom waa nam nam ko borom waa ndox ndox bi nu sëriñ sama abdu sëriñ ba suñu gën a jëndal suñu jadi jadi noo ngi sant bu baax njabootu Sëriñ Tuubaa gi tàmbalee ko Cheikh Sidi Muxtaar tey ñaan nu wax sunu la lamme yàlla sunu borom rek jàngal wéeru ko te lépp la ay Sering moo moo rakkam yi bokkoon Sëriñ Tuubaa yëpp ak man daal daal di ko demee waxoon nañu ne su ngeen liggéeyee seen liggéey ñoo ngi toll si barke boo xam ne jooju di ñaan sa sëñ bi mu yàgg fi ñuy xam ne nag moom moo nekk ci bopp yooyu noonu la dem ñëpp suñ si wàllu gàtt li ma la Sëriñ Tuubaa tànnal loo leen Cheikh Abdou Khadre ci këram muy Sëriñ Bassirou mu yor seen gàtt junj la ndax suñu doon seet sëti sëñ Tuubaa yi ñi ci gën a néew ak lay lay bokk man kenn kenn werante ko te lu ci yoon yoon kenn kenn werante ko loolu li jiite mooy gannaaw moom Cheikh Cheikh Bachir moo mel nii kon ñi ñi ko féete kaw kaw ànd na ñooy kenn kenn ba kenn kenn ba yéen Cheikh Cheikh Bachir la ndax tànn Sëriñ Tuubaa kon sëñ ba sax yoon yoon yu ñu tegtal te lañ lañ te duñ ko wàcc duñ leen jaaw jaaw rek ndax sëñ bi lan la tuuti ndax dafa wax ne suñu borom moo tànnaloo sallallahu alayhi wa sallam mu tànnal ba yar yàggal ne ko Ahmad mu ne ko lan dañ ko yow di mën tànn nee na sàllaaw dañoo jot jàpp ne da ngay def ci des tànn dañoo am ci yéen yéen yow yoo xam ne daal nga tànn nga ko def lay tànn sëriñ bi nee na lay tànn yan yan yàkkam tuuma ci ma doon tànn lënd lëmut man ma doon tànn sax sama yëpp naqar la ku ma ko bàyyi maa la ko bàyyi waaye loolu daal la sëriñ bi waaye loolu sant sant ci tànn ni sëriñ bi waa tànn bu nu parce que duñ leen jaaw jaaw rek ñoo ngi sant sant si waaw baax baax ci lii fi sëriñ bi wax wax ñun dañuy tegtalaat rek fi ñu soxla gaaw la teg demoon fi sëriñ si waay ndax li ko doon wax ñëpp yëpp yaa yaa doon dara laa yëg biir wax ndax sëriñ bi ndigal la leen bi sallallahu alayhi wa sallam doon la jëfee ngir yonent bi moo ko wax ne ko ñi nga àndal dañuy tëral sa sëñ bi nee na ñu jëm màggal Gaynde na ñëpp àgg suuf na ñëpp àgg suuf na ñëpp àgg suuf maanaam sëriñ bi dafa toll dafa jot digalal sëriñ bi sëriñ bi dañ ko natt ci dara waaye ñun ay mbët lan man xool saa bu digalal sëriñ bi doon teg ni ñuy mel noonu saa bu ñu digalal sëriñ bi waxee dañuy ne ñu nag nag sëriñ Tuubaa moom ak sëriñ bi ku digal wala tey ko ne wëlbati laa ba bi jëm ci waay bu mu jëloon defal ci Cheikh Ibrahima Fall ba mu liggéey defal ci maam Cheikh Ibrahima Fall defal ci sëñ Daam defal ci sëñ Massamba Diop Samb defal ci Cheikh Ibrahima Sall Ndiaye defal ci Cheikh Seydi Mokhtar ba moom ñu jeex bir mu demee ba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk xolam ba talatul kenn talatul lenn sëriñ bi dafa summi jumtukaay yooyee dénk ko jaaliyatul maraax loolu waral bi sëriñ bi ñëwee gàddaa na ko sëriñ bi waxee léegi yónnee ci Sëñ Balla Fall Diagne digal ko teel a ne ko nan ko mokkal ko fexeel ko koo jur nga ko mokkal ko koo jël nga ko mokkal ku la yaakaar nan ko mokkal ko bi amee ci taalibe ku ñëw ci sëñ bi na ko Mbàkke dama defar ko sëriñ bi da ko leen defar defar day laaj taxaw te man man taalibe ma taxaw kenn waaye yëpp nañ ko ci Balla Fall ndax Balla Fall defar naa ko sëñ bi jaar yëf la doon doxe maanaam sëñ bi ñu naan nañ ko yóbbu ca Balla Fall ndax Balla Fall defar naa ko booba ba sax sëñ Balla Fall dafa duy jaari bata maraxi bay moom fàttali ko leen ne sëñ bi da ko yónnee woon jaari duy gi ñu ko duy bay jàll ba moo waral sëñ bi yëpp la ci moom ba la faal defar naa ko sëñ bi kenn ci ay doom rek jot ndax bu ma ko waxee léegi ci sëñ Bas moom Cheikh Abdou Khadre noonu la gën a doomu sëñ Tuubaa saa booy tàgg doomu sëñ Tuubaa ba sa ba sa këyit fees koo defal ca bopp boo gën a jël keneen jarul bu taat gën a ngooy turu koo xam fekk fekk muy moom doomu sëñ Tuubaa ñoo yem ci lépp ñëpp a mën lépp waaye sëñ sax soxla bu ndax am bis boo xam ne am nañ taw fexe ak kenn ci mag daal di suñu wëlëre sëriñ Dame mu xasida yi wax wax na keroog alookaane ak xam loo xam ne jar na bàyyi lépp féete moom moom Serigne Fallou waaye bi ñu yeggee ci Dahiratoul Marakhib génn tudd génn tudd ba bañ ñu noonu tisbaar te boobu fukki waxtu Serigne Fallou kenn ku sëriñ suwaay taay ba napp ci yow ko ne nga mat sëkk sëriñ kii ma doon wax léegi di ko tudd ñu sëriñ Basiiru ca la bokk li tax ma di ko wax nag di ko baamtuwaat mooy dafa dëggal nit dafa dëggal nit ñi ndax kat ñun sëriñ Tuubaa lu ko laay ñu yëpp ko fi mu waxee nag foofu lañ ko waaw ndax lu dul Sëriñ Tuubaa asal ak naan la te ñu doon xayma amul suñu jëm jëm sëriñ Soxna bi nag doon gi mu doon daayiratul maraaxib tax na njabootu Sëriñ Tuubaa gépp jox ko seen i doom seexi Sëriñ Tuubaa yëpp jox ko seen i doom waaye mu ànd ca maanaam dëgg mat sëkk kenn ku la bu la defaree ba nga noppi da lay dolliwaat sa waajur tey jii ku fekk wu loolu sëñ Bass fa mu nekk daara sëñ Thioin parce que kooku àndaloon doo xam ne sëñ Thioin boo ko yar ndax fu ko tudd dañ cee xaar tur waajur bi sëñ Bass Abdou Khadre la def ne ci moom sëñ Thioin boo noonu la sëñ Thioin bi di jàll ba ci mat sëkk jumtuwaay yooyee nag da ko tasaare ak njabootam gi waaye sëñ am suuf nag ñun Sëriñ Tuubaa tànnal na ko am suñu jëwriñ fekk si lii moom it naan te boog lay waxal ak léegi noonu ngay sant bu baax di leen ko biral yéen kilifa yi di leen xamal ay naw la wala jàpp man andi naa sama doom di doomi si Ibrahima Diop di sama wëllëg ngir jëbbal ko ko da ko ne sa waajur yi lim la bëggal ba indi fi mënoon na la ko mën yem ci moom. loolu am baaxam ak nawlante le wane ne YouTube du dara ci mooy seen ñun ñu topp ci ginnaaw ñu kenn côté ne da am wasila di ko siyaare di ko def sa stade mën naa leen lim ñu bari di ngeen ko xam ne noonu la kenn ci ñun koo xam ne mas naa lu jëm am lu dul kenn ko ne defar na la defari bi boo xam ne sa sëriñ amaat na ci yow yeneen taw feeg yoo xam ne xam na ne ànd gi nga ànd ak sëñ am si moo ko bay kon ndax dafa jëf. li ko sëriñ bi dimbalee ci téere bi nag mu dindi ci dimbali ma ne nañ jàppal ka yàlla yàlla war a li sëriñ bi baa bëgg ci am murit moo ko mën moo ko koy defal comme maa ko yow nga mel ne ni sëriñ bi baa ndax tam ci noonu. soo xoolee jaalibatal maraaqib fi aajali ka aajali miraaqib bi soo defee soo xoolee adadu uruf bi moo lay jox adadu uruf bi cheikh soo jëlee baatu cheikh ak cheikh nga xam ne bu sëñ Tuubaa sama fi dañ naan cheikh diw ñoo bokk ñoo tolloo boo leen koy seet 1610 la cheikh jaalibatal maraaqib 1610 la comme noppi ci yow nga mel ne ni sëñ Tuubaa noppam ci waxuma nag yaakaar ne noppam ci yow waaye comme noppi ci yow la wax ngir la sëriñ bi waxoon nag te di ko dimbali ci gërëm defar kon noo ngi sant yàlla bu baax a gudd ngi santaat suñu borom xam na ni Cheikh la waxat waxoon Cheikh Ahad waxoon rek su ngeen xamee ne sooyu leen ne sooyu leen foofu la ne ne Sëriñ Tuubaa moo ma ne Aïcha ma ne ko Mbàkke ma sama liggéey xasida yi dénk naa la ko Sëriñ Tuubaa taw féexal man moom ne liggéey boobee fas naa ko si bàyyi ko fi ñu wéyee liggéey boobee ba Sëriñ Tuubaa tàkkal la suñu am liggéey Sëriñ Tuubaa ba sos si màggalu xasida yi loolu di lu rëy yoo xam ne fii lañ ko njëkk ci yoon tey lu war ndax Sëriñ Tuubaa moomee lu mu am ci borom la subhaanahu wa taala jëlee ko ci yéen ñëpp sallallahu alayhi wa sallam ci xasida yi la ko nun taalibe bi nun bëgg ci sëriñ bi mën ko am ci xasida bi léegi film bi wax na ko sëriñ Abdou Samad di ko nettali ne Sëriñ Saliou ba mu koy laaj xasida yi Sëriñ Saliou dañu gën gën na ba mu yàgg ne ko moom day jàllale damaa gis sëriñ bi di ñaanal nag way sëriñ bi daa ñaanal kuy tànn yàlla tabaraka ñaanal yoo xam ne gis nga suñ feneen fu ko sëriñ bi def keneen dindee itamit ne suñ borom war na la kuy tànn yàlla loo xam ne ku dul tànn da nga ko ñëwee kon nag alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant yàlla daal ci suñu màggal gii nii màggal la sëriñ Tuubaa xasida nii di dalal suñu xel njabootam ji ko nangoo ànd ak moom ndax ñoom duñ teg seen tànk fu ngërëmal la wa maa saala hadi bi reda la sëñ Tuubaa wax te ñooy sëñ Tuubaa kon seen teewaay bi fii maa ngi leen ciy sant di leen gërëm tey si day suñu borom doon leen teegal def tey ñaan ci ñoom nag ñu ñaanal suñu borom borom sunu ko suñu borom borom aar ko suñu borom borom sàmm ko ba yéene gi mu am ci ñun daan daan yi suñu borom borom loolu lañ am ko li ñuy wax ñoo ngi